dama leen leeral bi am électronique bi dégg nga mooy ceeb bu ñu ko bu ñu ko lekkee rek dafa fekk ñu toog koo pare dëgg la ku ñu mayoon téeméeri saaku ceeb bi mën a koo jariñoo dëgg la fekk ko cin wi dëgg la dama ne mhm. man téeméeri saaku ceeb bu la ko mayee waaw mënoo koo jariñoo fekk dugaloo ko cin bi dëgg la téeméeri saaku ceeb yi duggul ci cin benn pot caab ceeb bu dugg ci nag gën dëgg la waaw ndax moom day lekk xam nga ñun lu ñu doon lu ñu doon ñun ñooy saaku ceeb bi alhamdulilah xam nga ñu cin yi waaw caméraman yi jërëjëf

ndax bala no tàggoo. dama am message bu fort bo xamne dama ko bëgg a laasal. waaw ay laasal bëgg see jël séré adina wa lu xew. gis nga sé wa Omar Gueye. wala dafa ne lu bax lu bax rek koy fay. deug la. te nag tubarkalla ci mbax mo gis rek. yow tek sen dil fële la ko topp nag mooy rimbax. waaw ah kon ci mbax rimbax. ci mbax rimbax la. d'accord. ta xam nga la wala wolof wax. wolof bu ko mbolo bokke bu ko baxal boo ko def ndax boo ko boo xale ñaar nit da koy lekk mu sa mburu càpp daal di ko deux TV nag mayonnaise na xew ma Omar mm-hmm. sa gagné waaye jàppal na Omar télévision yi ne Sénégal yëpp gagné nañu dëgg la mm-hmm. ndam li ndamu kuy tele ku ne ci réew mi la mm-hmm. ndax tey c'est le Sénégal qui a gagné Alas Ndiaye gagné wul 2STV gañewul Sénégal moo gañe